yaa rabbi allahumma sallimni abad min ramadaan wakfini kulla nakad asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ngi dellu siwaat ci naafile yi ñuy jële ci xuratul ayni sëñ bi dafa wax ne guddi fukkeel ga ak ñaar ci weeru koor ku ci julli fukki rakka rakka bu ci ne mu jàng ci faatiha benn yoon jàng ci xul huwallahu ahad juróom benn yoon des na ko ca wutal ca àjjana juróom ñetti junniy soxna te des na ko boole ci dëkkandooy yonente bi sallallahu taala alayhi wa te mel na ni ku jàng tawrat ak injil ak zabur ak furxaan tey dees na ko jéggal bàkkaaram yépp lu mu bari bari doonte tol na ni duusi géej gi te des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla ak juróom ñaar fukki at mel na ni ku goreel junniy jaam te bu bis pencee dees na ko ràmmloo lu ko soob ci ñi naroon a dem sawara te dana tabbi àjjana te deesu ko xisaab jërë ngeen jëf falaka waxdaka ilaahi sumtu summa bi qudratika qad aftartu fa li xifran jamiia ma qaddamtu yaa gaafira zambi wa ma axartu